mais j'ai eu dire que da ngeen bëgg def ku mel ni Bara Gaye seen candidat à l'élection présidentielle Bara Gaye est un protégé euh, de Serigne Moustapha jàppale na ko lu bare bare vous avez ouï dire. <laughs> que Bara mooy nekk seen candidat à l'élection donc il y a beaucoup d'incertitudes à l'élection présidentielle lu ma la mën a wax hmm. c'est que les militants du parti Unité du Rassemblement ont demandé à ce que Serigne Moustapha nekk suñu candidat maintenant Serigne Moustapha su nangoo dana nekk suñu candidat su nanguwul danañu wax kii nekk candidat parti bi. ah dina leen désigner kii nekk candidat. bien sûr ñu ngi koy déglu moom moo ñuy wax moom moo ñuy wax conformément au texte loolu laa wax sànq il propose et euh, le congrès officialise donc moom ñun suñu yéene mooy Serigne Moustapha nekk suñu candidat. moom la ñu bëgg mu nekk suñu candidat. mais bu nekkul seen candidat dina désigner kii nekk seen candidat danañu Bara Gaye il est député euh, maire de Yeumbeul donc euh, euh, il n'a nullement été question amul fenn fu ñu waxtaanee ne Bara moo nekk suñu candidat. mais Bara Gaye est très proche de Serigne Moustapha. c'est pas parce que Bara Gaye est très proche que de Serigne Moustapha. doomu Serigne Moustapha la te Serigne Moustapha am na ay visées ci moom euh, pour def ko candidat. <laughs> mais bu pur à l'élection présidentielle a kum ku koo xamante ni Serigne Moustapha nee na kii moom moom la ñu wax moom moo bëgg moom lañu bëgg mu nekk suñu candidat su fekkee ne moom nee na du nekk candidat tel personne la bëgg kooku mu wax mais kooku la ñu bëgg nga nekk candidat présidentiel bu pur mais man mënu ma ne Serigne Moustapha laa bëgg mu nekk sama candidat ba pare may wàññeeku naan dama bëgg nekk candidat Serigne Moustapha moom laa bëgg mu nekk suñu candidat. léegi bu président Serigne Moustapha choisir Bara Gaye di nga topp Bara Gaye jàppale ko. Serigne Moustapha ku mu mën di choisir ko topp jàppale. ku mu mënta choisir yow Cheikh Tidiane Youm. di nga ko jàppale di nga ko taxaw mais évidemment évidemment mais c'est le président du parti. sëriñ Moustapha est le président du PUR du parti de l'unité du rassemblement. bu ñu nee suba du ma nekk président. kee laa bëgg mu nekk président mais ñun ñëpp dañu dem jàppale ko parce que c'est le président du parti li mu wax loolu la ñuy def. parce que tamit am na beneen possibilité que Serigne Moustapha bañ a présenter un candidat e et bi nga xam ne moo gën a probable ngeen ngeen jàpp parce que léegi. pur bu njëkk ba dafa jege woon bu baax Khalifa Sall on se rappelle tous de l'épisode euh, de de la de la à la veille de la de la de de la de la convocation de xalifa de Khalifa Sall Moussa dañ ko doon jàppale lu bare bare mais dafa mel ni les relations se sont un peu distendues entre Serigne Moustapha et Khalifa Sall et que tey même yow sax ci biir coalition bi vous êtes très proche de de Ousmane Sonko et donc euh, boo leen amul candidat boo leen deful baaragay amu leen candidat. Euh, Ousmane Sonko ngeen di ngeen di jàppale. là vous faites de la pure météo Maïmouna tantôt Bara Gaye tantôt Khalifa. non man dama la dama nekk di la tegal ay non non doo leen jàppale Khalifa Khalifa les relations se sont distendues <laughs> voilà sëñ Moustapha ak Khalifa les relations xaw na xaw na xëyam tuuti mais. bu sëñ Moustapha nanguwul seen yéene nekk candidat mhm. Bara Gaye nekkul seen candidat mhm. wutu leen candidat mhm. Ousmane Sonko ngeen di jàppale et vous Cheikh vous êtes très proche de de, de, du leader de, de PASTEF. Vous êtes très proche de Ousmane Sonko. Ousmane, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que euh, c'est un homme entier. Il est pugnace, combatif, endurant, entier. Donc je ne vois pas pourquoi euh, waruma am ak moom yenn relation yi c'est pas ce que vous avez dit waxuloo ne waruma am ak moom relation mais li mu bëgg wax foofu rek moo di euh, c'est tout à fait naturel mais li ma la bëgg wax mooy euh, bu ma waxee sànq ne da ngay def météo moo di ñun ñi nekk ci parti bi suñu yéene mooy li ma la wax maintenant Serigne Moussa moo ñuy wax waxaguñu waxaguñu suñu waxee la mu wax la ñuy def quant à des hypothèses mais des hypothèses on peut en émettre il y aura énormément parce que l'échiquier politique il y a tellement il y aura tellement de candidats mën nañu émettre hypothèse yu bari pour jàppale tel ou tel autre candidat mais sauf que lu ma la wax sànq moo ji le pur était avant faiseur de roi et maintenant le pur veut être roi il faut que Sénégalais yi xam ko sëñ sa wax na ko waxat ko nee na ci politique bi kenn la mos a jàppale mooy Abdoulaye Wade du liggéey pour yàkkale le parti du rassemblement dañ ko mettre en place pour accéder au pouvoir suprême ci dynamique boobu la ñu nekk là aujourd'hui on a mis en place un programme qui est terminé il y aura des ajustements à faire dans les jours à venir on a initié une tournée nationale qu'on a déjà commencée qu'on a interrompue avec le Ramadan la caution qu'on doit verser elle est presque complète on est dans une dynamique pour aller prendre le pouvoir et le pur fi mu war a yegg amul kenn war a mën a tax ba du fa yegg parce que Sénégal pour jubbanti ko c'est le parti d'unité du rassemblement qui pourra le faire politique boo koy def njub nga ko war a defee politique du jóoj njaaj de kilifa yi naan bàyyi naan jóoj njaaj pur gisul loolu comme politique